waaw xam naa ne kon dañuy bàyyi euh, mbokk bi mu nodd am na ñu ngi may waxit ne xalimatu saadiya nga xam ne moo nekkoon secrétaire u cardinal xam ngeen dafi tuuboon dugg ci lislaam alhamdulilah alfate lislaamam jokkoog mbokki jullit yu bari dañ ma waxoon tey ñëwoon na ziyaare tafsir bi xam naa ne maa ngi doon ko ñaan su doon te ni ne yegsi na mi ngi ci jàkk te mu noonu ñëwee ci bunt bi ci kanam même bu doon te ne mën na nuyu mbokk yi ngir ñaax su mbokk jigéen ñi ci loolu toll ko ay deux trois minutes loolu dana doon lu leen di ah, gën a dolli xaw ma ndax euh, soxna Mouhamed Mbaye bi mu àndal bu dee mën nañ ñëw ci bunt bi bu ñu noddee ba pare rek mu am kàddu yu mu jox sunu mbokk jigéen yi incha allah. secrétaire u cardinal Thiandoum bi ngeen xam yéen ñëpp yàlla dogal mu tuub dugg ci lislaam am na it ay mbokk yu bari ci ah, nu doon Touba ak feneen ak feneen ñoo xam ne am na taxawaay yu bari yuñ taxaw ci moom suñ mbokk Medoune Mbaye sax tudde na ko benn doomam tey dañ woon di nemmee ko doon te ñu yàgg nañ dégg ay kaset yu mu doon def ay conférence yu mu doon def comme yàlla indi na ko fii tey ñu bëggoon mu yëkkati fi kàddu yéen góor ñu dégg ko waaye suñ mbokk jigéen ñi am lu ñu dégg ci moom rek incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa ci teewaay bi mu teew fii ci suñu kanamu ay mbokk jullit ay frère ay tonton ay papa di jaam bu néew doole nag bu ñëw ziyaari si leen rek te yàlla tax alhamdulilah ala kulli xaal bañ yàlla wonee dëgg ndax islaam rek mooy dëgg comme ni ko mbokk mi waxee rek ñu ngeen ko déggee noonu la amee bi may convertir di nekk jullit ñetti fan moo des fii ci Sénégal wala ñaari fan ma waroon dem Italie ci pape bi ma waroon dem Italie bi am fa sept ans yàlla di ma wanali ak ay gént may gént gént boobu nag comme waxtu bi duñu ko may te dafa xaw a gudd ngeen baal ma rek ma tënk ko gént boobu nag mooy li ma dévier ba dugal ma ci islaam bi ma ko mujjee gis rekk si nim ma def laa leen di wax bopp bi metti la ma dikk tëdd naa ko bi ma ko tëddee ñaari fan benn fan laa ko tëdd ba ko ñaareel mu ñëw fekk ma fi ma tëdd mu yëkkati ma won ma place bu rafet laaj posé ma it ay question ne ma ndax mas naa gis place bu mel nii wax dëgg yàlla fi ma dem bari na li ma gis bari na waaye foog ma dugal masumaa gis fu ni mel ma tontu ko ne ko déedéet mu ne ma ndax xam nga fii ma tontu ko ne ko déedéet mu ne ma yàlla rek nag moomu boole ak yow yàlla kese moomu boole ak yow ndax jullit yi de bari nañu ma bëgg a gis waaye mënuñu maa gis yow nag yàlla dama boole ak yow li yépp nag nga gis sa wërsëg la waaye boo waxul ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulillah sallallahu alayhi wa muy lu metti ma dund ko ma yeewu toog ci lal bi xalaat lu baree bari sama ginnaaw ak sama kanam sama ndejoor ak sama càmmoñ mu doy waar lool waaye yàlla may ma kàttan ndax du man ma jóg seet naa lu ma daggee létt yi ma àndaloon gisuma ko ma làmb weccet dem jënd lancet ñëw dagg mèche yi nekk sama bopp bi yépp ma dem si benn xale bu jigéen bu dëkk si koñ bi day jàngee ko oustaz Abdallah Pam ma ne ko na ma yóbbu pour ma convertir mu insiste ne ma yow mii doo convertir ndax xam naa la ma ne ko danga ma naan romb dinaa la romb waaye yow xamoo ma ndax balaa ngaa xam nit ki ngeen jëflante fekkee danga may yóbbu nga yóbbu ma fekkee mënoo ma yóbbu rek nga wax ma mu ne ma nañ dem ñu dem mu yóbbu ma ci ustaas bi ustaas bi tuubal ma mu tudd Alimatu Fay comme demee woon na noonu nag mu nekkoon ci préparation voyage mu metti lool ci sama ay waajur waaye ni may def nag ba ñëw jàkkaarloog famille bi ne leen man jullit laa léegi moo des nag mooy problème bi mais comme que yàlla dafa ma dimbale woon moo ñaale ma fit li au première occasion bu ma njëkk am rek mun naa leen ko wan mais nag du nekk ci ay wax waaye ay geste lay doon comme sama papa dafa amoon habitude bu yeewoo day ñëw taxaw ci pied bi jàkkaarloog garab yi ci diggu kër gi dama dégg mu yeewu rek mu profité gaawante ñëw jël satala rek commencé di jàpp di jàpp mais commencé nag xam naa fa dafa yaakaar damay raxasoog yooyu ba ma demee nag ba toll ci sarax ndiku nag ci la ma ne comment yow dafa mel da ngay jàpp ma ne ko waaw damay jàpp mu ne ma yow dangay jàpp ma ne ko waaw damay jàpp sama yaa jógee ci biir nag ne ma lool du fi amee ñu topp ma nag xoqatal ma weeru koor la woon ñu dóor ma convoqué ma fii à Dakar dóor ma yandu maa dóor 9 ba 2h takk ci chaise xupp ma ñu ne ma dañ may taal du lu ma weddi ndax boole nañ ma ak sama mag mu defar seringue poison pour pikiir ma ko yàlla moo ko échoué loolu sama yaay tere na ma lekk trois jours ci kër gi ma nekk ci weeru koor ñetti tàndarma laay lekk par jour waaye wallahi de mbokk yi du man yàlla la ndax xaw ma luy xiif xaw ma luy ñàkk ndax ba ma demee ñu ne ma ndax yow lu la tax a tuub na dangaa ragal safara wala dangaa bëgg jullit yi dajale seen alal jox la dama leen ne bu doon alal du ma ñëw fii bu doon ay moyens kon du ma ñëw fii kon li ma indi fii yàlla la kon nag ñu ma def ma lu ne tey jii boo demoon mbuur laajte jamono yooyu ñu ne kooku mooy doom bi gën a bon ci kaw suuf ndax li ma nekk jullit et pourtant dama leen daan jariñ waaye nag yàlla mi nga xam te ne nii moo moom dogalam moom moo dogal lii si man ma nangu ko sans papa bi ma jur maa ngi ko mujjee gis ci buntu tribunal bi muy tribunal ak man pour ma delluwaat këram ndax bi may tub dix-sept ans laa am aw ma woon vingt ans pour mën a génn suñu kër mais ñu jàpp ma façon bu nekk ñu def ma ko sama yaram yi ba léegi nii am na ay yoo xam ne nii si dóor yooyu laa ko jëlee mais nag mbokk yi alhamdulilah ndax diine rek mooy dëgg ndax xëy na fañ ma wonoon ne ma fii fu rafet fii xëy na fa ma dëkk melul noonu waaye sante naa ko yàlla ndax nit dund na ba xëy faatu amul sax benn pentre bu mu moomal boppam yàlla dénk na ma kër ci kàttanu yàlla loolu du wërsëgu na lu dul islaam may encouragé sama mbokk jigéen yi xamal leen ne diine mooy dëgg ndax li tax diine mooy dëgg sama famille yi bañu ñu woon ma julli mais li leen gêné mooy muuraay bi te maa ngi koy gis ay jullit seeni doom muuru ñu ne ko diñ ko dindi bu leen ko dindi de moom mooy dëgg incha allah ndax suñu kiiraay la ngeen baal ma bu baax lu si jub si yàlla la jóge lu si dëng man jàmbu mate bi la asalaamaaleykum wa rahmatullah jazakumullahu xayran wa rahmatullah jazakumullahu xayran yal na yàlla barkel ko kon mbokk kooku seen mbokk julit la yàgg nañ ko dégg ci ay conférence yal na yàlla jàppale ko jàppale ñu jàppale bépp julit inna الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب